initiative bi tay biñu fi dajalé moy initiative bu am solo moy bi nga xamné ne euh, wa commune fan Point Amitié fi ci quartier Amitié 2 ño daje di maye deret maye deret nag di lu am solo té balangko nga ko xam rek fièvre dab la nga soxla deret lolo tax nak ku ci ne ci ñun warna fexé ba euh li nga xamné ne am solo euh fi nga dëkk wala fa ngay liggéey ngeen di organiser wu. ndaxte liggéeyu kay bi nga xamante mom lañ dénk lool ci Sénégal. moom mooy centre national de transfusion sanguine yàlla def na yenn saay du ñu am deret bu doy te loolu nag dafa doy waat ndaxte bu nekkee 16 millions de sénégalais ku ci nekk bu jógoon rek at mu jot maye benn yoon rek defe naa ne du ñu am problème boobu. donc nañu xam ne ni ñuy jàppalee ay nit ci seenu dund di jàppale ay nit ci ni ñuy soloo di jàppale ay nit ci ni ñuy jàngee noonu la ñu war a jàppalee ay nit ci may leen deret ndaxte yàlla def na ñii am nañ deret waaye ñii tamit matalewuñ ko wala ñii dinañ toll ci accident wala ci feebar boo xamante ne am deret moo leen di sauver donc ñuy woo sénégalais yi di woo suñu dëkkandoo yi di woo yéen journalistes yi ku ci ne ci këru liggéeyukaay yi ku ci ne ca fa nga ne ñu euh, mën a ànd di liggéey di maye seen deret de temps en temps ndaxte am na ñu ko soxla te am na ñoo xam ne farata la ci ñoom. Euh, ci don bi dañoo fixé woon benn objectif pour cent cinquante poches mais gën gisee donneurs yi ni ñu ñëwee massivement am na nañu yaakaar ne d'ici la fin de la journée on aura vraiment plus de cent cinquante poches. comme ni nga xam ne ñëpp temps yëpp ñu ngi lancé. pour nit ñëw seen CNDS pour maye deret parce que temps yi dafa nekk déficit parce que deret dafa nekk loo xam ne mën na ko produire te nekkul loo xam ne aussi dañuy dem di ko jëndi kon doomu aadama rek moo ko mën a may moromam raison pour laquelle don de sang nekk loo xam ne c'est fondamental donc maa ngi profité di lancer un appel à les sénégalais ñëw def geste bi nga xam ne dafa naw parce que sa sa sa nit sa morom doomu doomu aadama am ne ci cas d'urgence nga ñëw maye deret pour sauver ko je pense que loolu geste bu noble la donc vraiment maa ngi woo ñëpp def vraiment pour sauver des vies.